ma lay wax ne Ama Baldé fi mu tollu bëgg roi des arènes Modou yor roi des arènes bi ak njàmbaaru Ama Baldé ak njàmbaaru Modou Lo amateur yi ku neex bàyyi ba arbitre souffle boo demee làmb joj day egg mais problème open press yi ak signature contrat yi waaye nañ ñu dimbali yóbbu ko gore wala ñu dimbali yóbbu ko ci géej gi mais fu nu ko mën a def ni ñi ñëw kon ci gàttal ma bëgg làmb ji ñu gérer ko ci jàmm lig yàgg ngaa tëgg mosoo échec mais boo góor góorluwul ci combat Modou ak Ama Balde di nga échec bu rëy rëy ñaar ñooñu du ñu ay mbëri cuune jëlal say responsabilité génn ay moyens wut foo leen di yóbbu pour nga def seen signature contrat amateur yi seetaan leen bis ba jot ñu yóbbu ko stade de ci ñu bëri ko ci jàmm ku que le meilleur gagne loolu mooy li ma lay wax ba nga laaj ma leneen.